maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen wax ne damay àggale kii bi euh, vidéo bi ma mujjoon def pour création tableau Excel bu buy gérer caisse de transfert d' argent parce que am na loo xam ne ma bëggoon naa ko expliquer ci vidéo bi mais dama doon bañ vidéo bi xaw a gudd lool quoi moo tax ma ne naa naa ko def en deux parties euh, léegi bu ngeen créé tableau Excel bi ba pare ba ngeen kii ko ba pare léegi tableau Excel bi comme situation la dama leen di conseiller ngeen comme ni ma ko bindee fii ci présentation bi ngeen créé 30 feuilles ci tableau bi léegi 30 feuilles yooyu nag feuille bu nekk benn jour lay représenté par exemple nga déparé ci mois de janvier nga def euh, premier janvier euh, euh, kii deuxième deuxième deuxième jour mois de janvier ainsi de suite léegi nag loolu pour ma expliquer leen ngeen ko ko comprendre léegi xaaral ñu ñëw fii ci xaaral ma ma ubbi sama application Excel bi mooy situation de caisse yi wala application bi noonu bi noonu liggéeyee moo nekk nii quoi. bu ngeen xoolee fii euh, jotuma woon ko expliquer mais defoon naa fi date ma def premier jour janvier par exemple noonu ngeen koy toppee noonu euh, euh, par exemple ci feuille yi nii léegi fii boo xoolee am nañ fi tableau Excel par défaut par défaut tableau Excel trois feuilles moo ci nekk trois feuilles trois feuilles ñooy nekk ci tableau Excel loolu neen ko neen comprendre mais man feuille bii dama koy supprimer boo bëggee supprimer na feuille parce que li tax ma ne bëgg na leen expliquer dama koy supprimer boo ñëwee fii supprimer rek après mu supprimer wu léegi benn feuille bi moo fi des mais au moins il faut benn feuille des ci tableau bi parce que tableau mënoo am tableau boo xam ne amul feuille quoi loolu tamit dama euh, léegi ni may def mooy euh, damay copier feuille bi nii damay copier pour copier feuille nii ngeen def da def clic droit ngeen def euh, ngeen def ngeen dem fii déplacer et ou copier nga cliquer foofu boo fa cliquer astuce bi ma leen jox fi mooy. da ngay ñëw en dernier toujours pour euh, feuille boobu ngay ngay copier mu dem en dernier mu euh, nekk mu mujj ci feuille pour exemple bi ma leen jox quoi après nga biir nga cliquer cliquer fii créer une copie après nga def ok léegi une une fois nga def ok automatiquement euh, feuille bi day ñëw fii day ñëw ci une fois nga def ok gis nga ni léegi dañu am deux feuilles feuilles ñaari feuilles ñoo ñëw quoi parce que bi dama copier léegi mais feuilles yi dama bëgg ngeen ngeen. Euh, jox ko ay tur quoi par exemple euh, ngeen jox ko ay euh, kii ay numéro par exemple comme premier premier jour du mois de janvier fii feuille bi da ngeen koy renommé par exemple renommé feuille boo ko defee soit da nga def clic droit am na fu mu bind fii renommé ba la neex mën nga def renommé après nga effacé li fi nekk après nga def 1 par exemple man noonu laa ko liggéey quoi 1 léegi 1 bi li muy signifié mooy mooy boo li muy référencé wu mooy premier jour du mois de janvier. bu dee feuille de même si même feuille bi ci topp nii même chose après nga nga renommé ko renommé après nga effacé fi nekk après nga def deux ainsi de suite léegi da ngay continuer copie bi nag léegi copie bi il faut nga continuer euh, xaaral moon leen ñu copier waat kii bi copier fii euh, ba mu ba il faut ngeen copier ko ba mat ba mat 31 feuilles en dernier après nga def créer créer une copie après nga def ok voilà gis nga ni day day ñëw fii ne la 1 2 mais da nga koy changé boo bëggee boo bëggee renommé tamit li ci gën a gaaw mooy bu la neex mën nga def double clic double clic fii rek après nga def par exemple nga def 3 nga xam ne bii mooy troisième jour bi ainsi léegi nag beneen astuce bi gën a gaaw mooy euh, au lieu ngeen di def euh, ngeen euh, kii nii ngeen di copier benn par benn léegi bu la neexee mën ngaa sélectionner premier feuille bi nii après dem ci shift fi ñu def bouton majuscule bi quoi mooy shift en général bouton. touche shift bi nga cliqué ci cliqué ci dernier feuille bi loolu li muy li muy jariñ mooy day associer feuille yi léegi fii su ma ñëwee fii su ma defee clic droit da gis ni mu demee dissocier les feuilles cela veut dire que feuilles yi associé leen kon léegi mën nañ copier trois feuilles yi ensemble léegi bu ko defee nga def déplacer copier euh, déplacer copier après nga def créer une copie nga ñëw fii en dernier après nga def ok gis nga automatiquement a gaawal en tout cas daal Euh, léegi fii nga ñëw ci renommé bi tamit pour bañ a jum léegi fii 3 après 3 4 moo ci topp nga di nga effacé def 4 euh, nga ñëw fii bi ci topp nga effacé fii def 5 ainsi de suite xam naa je pense que léegi comprendre ngeen ni ma bëgg a euh, nga effacé def def 6 sixième jour ainsi de suite léegi ñu li ñu la ne mais nag boo ñëwee fii premier deuxième jour bi toujours fii da ngay changé da ngay changé li nga bindoon fii par exemple fii deuxième jour laa bindoon ba léegi ma bind deuxième jour il faut ma def fii. Euh, euh, premier jour damay fii damay def fii deuxième jour deuxième deuxième jour par exemple ma effacé lii def deuxième jour deuxième jour par exemple yaa yéen a xool ñu ko ni ñu ko def ñu ngi arrangé après ñëw fii demaat fii ma def euh, après ñëwaat fii ma def troisième troisième jour troisième jour gis ngeen nii voilà léegi ainsi de suite mu continuer quoi léegi troisième jour bu mois de janvier yooyu yëpp dañ koy changé pour mu mën a méngoog li ngeen bëgg euh, li nga xam ne ni moom la kii bi parce que loolu da ngeen ci changé mais à part ci des feuille bi moom li yëpp moom euh, mën nga conserver parce que euh, loolu mooy mooy formule yi nga xam nañ ko ci maanaam formule yi nga xam ne def naa ko ci pour mu mën leen calculer defal leen seen situation de caisse je pense que loolu moom comprendre ngeen ko léegi su ngeen paree su ngeen paree par exemple su nekkee ne copier ngeen affaire bi ba am 31 feuilles parce que tableau bu nekk comme li ñu wax 31 feuilles ngeen koy def euh, numéroté ko de 1 à 31 léegi après bu ngeen defee mois de janvier dana xaw jël temps nag mais ngeen jël seen temps après nga def mois de février nga nga ubbiwaat euh, tableau Excel bi euh, enregistré waat ko bu lii boo paree mën nga mën nga ko enregistré comme mu nekk situation mois de janvier. Euh, beneen beneen tableau boo xam ne nii 31 feuilles la nga def situation mois de février defaat beneen tableau def situation mois de mois de mars ainsi de suite je pense que loolu comprendre nga loolu daal laa ne woon naa leen koy indil comme information euh, parce que loolu bu ñu ko defee une fois def ko dañu noppal bu defee mois de janvier boo ko soo xasee ubbi tableau bi rek tableau bi da nga ci liggéey durant tout le mois de janvier euh, soo ci paree nga daal di ko Euh, ubbi euh, tableau mois de février euh, mois de février boo ci liggéeyoo ba tamit ainsi de suite nga ubbi tableau mois de mars jusqu'à année bi di jeex bu ko defee bu année bi jeexee da mën def récapitulation ci li nga am ci année bi yëpp ci ci sa ci sa ci sa kii ci sa point de transfert d'argent waaw loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information di leen jaajëfal yi ñëpp